pour mu dox mooy il faut ñu am une nouvelle mentalité il faut ñu am une nouvelle culture ñu xam ni réew mi du réewu du réewu Jomaay président Jomaay Faye déedéet suñu réew lañu ñun ñu ñëpp ñoo ko war a jàppale ci li mu woote jub jubal jubbanti mais jub jubal jubbanti comportement la jub jubal jubbanti attitude la ci suñu diggante ak espace public yi ñu bañ a taqal wala su amee ku taqal ci boppam ñu man ko for defaraat jikko yi defaraat toogaay yi bàyyi mbedd mi mbedd mbuur la loolu moo tax ñu indi le corps des volontaires yombul ndax am na ñu fi doon jaay peut seen jaay taxaw na mais espace public espace public la marché marché la mënuñu jël promenade bi ñi def ko ab marché loolu mënta nekk loolu suñu responsabilité la ñu war ci waxtaan ak ñépp waaye ñu war ko doxal ba sécurité am ba espace public yi nit ñi mën a génn mën a dox te kenn du leen agressé loolu moo tax corps des bi ñëw corps des boobu 7h30 dañuy taxaw ci buntu école yi ngir jàppale xale yi nga xam dañuy traversé ñu mën a traversé yenn heure yi nga xamante ni circulation bi dafay xat corps volontaire boobu aussi jàppale polis ci organiser circulation bi